sëriñ cheikh absa mbàkke sëriñ cheikh sa mbàkke mi ngi feeñ jamono ci atum 1880 ci dëkk bi di mbàkke kajoor di doomu soxna absa jaxate ak mamor anta sali mbàkke amul na kenn kum bokkal kii di soxna absa jaxate kon bennub doom la ci soxna absa jaxate soxna absa jaxate mi meññ sëriñ cheikh absa mbàkke mii nag sëtu mammaara mbàkke la ndax soxna absa jaxate doomu sëriñ ibrahima jaxate la sëriñ ibrahima jaxate doomu soxna absa jaxate soxna absa jaxate kubra mii nag doomu soxna awa ñang ñang mbàkke la soxna awa ñang mbàkke nag moo nekkoon taawu maam maara mbàkke sëriñ cheikh absa mbàkke soxna absa jaxate mi ko meññi ñii la nekkee sëtu maam maaram sëriñ cheikh absa mbàkke mamor anta sali mbàkke moo nekk waajuram wu góor mamor anta sali mbàkke doomu maam balla mbàkke la maam balla mbàkke doomu maam maaram la kon sëriñ cheikh absa mbàkke ci wàllu waajuram wu góor ak wàllu waajuram wu jigéen lépp maam maaram mooy seen maam doomu mamor anta sali mbàkke boobu ak soxna absa jaxate nag bi mu feeñee jamono ci atum 1880 mamor anta Salim Mbàkke mi waajuram sëriñ Cheikh Sidiya Baaba bu gànnaar la ko tuddee bi ma tee dal alxuraanul karim dafa tombeeg nag Mamor Anta Sali Mbàkke mi nekkoon waajuram nag génn àdduna ndax moom sëriñ Cheikh Absa Mbàkke ci atum 1880 la feeñ jamono te waajuram wi di Mamor Anta Sali Mbàkke ci atum 1882 la génn àdduna moo tax bi ma dal alxuraanul karim magam xaadim rasul moo ko dalal alxuraanul karim ginnaaw magam xaadim rasul nag la ko jébbal ku ñuy wax sëriñ Souleymane Diop sëriñ Souleymane Diop mi nag mbokk la woon ci sëriñ sëriñ Masamba Diop Sam ginnaaw sëriñ Souleymane Diop lañ ko jébbal nag sëriñ Ndaam Abdourahman Lo moo wéel am njàngum alxuraanul karim ba sëriñ Cheikh sa Mbàkke nag bind nag lii di kaamilo alxuraan bi ginnaaw sëriñ Ndaam Abdourahman loo nag lañ ko jébbal magam maam Thierno Ibrahima Faati Mbàkke Ndaamal Daaru moo ko jàngal nag lii di xam-xam ginnaaw magam nag maam Thierno Ibrahima Faati Mbàkke Ndaamal Daaru lañ ko jébbal nag seen mag ja maam Moor Jaara magi mag mu saytu nag am njàngam mu delsiwaat nag ci loxoy magam sëriñ sëriñ Touba Seexul Xaddim nag dem ci géej gi bi sëriñ Touba Seexul Xaddim nag di dem ci géej gi rakkam ji nag di sëriñ Cheikh Absa sa mi ngi ko bàyyi woon nag ci loxoy rakkam ji di maam Cheikh Anta Mbacke maam Cheikh Anta Mbacke nag moo taxaw woon nag rakkam ji di sëriñ Cheikh sa Mbacke ndax ak kóllëre kat gu seen ñaari waajur ya séq kóllëre gi boole woon ñaari soxna yu tedd yooyu ba tax sëriñ Touba Seexul Xaddim sàmm ko nag ci seen ñaari doom yooyu mooy sëriñ Xaalima Jaxate Kala mbokkum soxna Absa Jaxate la ndax sëriñ Ibrahima Jaxate mi meññ xaalima jaxate kala la te bàyyi xaalima jaxate kala nag wëlla réew Mamor Anta Sali Mbàkke la loolu itam na mu doon sàkku nag ci Mamor Anta Sali Mbàkke noonee ñu jaxasoo ba tax na ku tudd bàyyi xaalima jaxate kala teg ci Mamor Anta Sali Mbàkke sëriñ xaalima jaxate kala nag wut doomu aadama nag ju ko gën a dëggal nag mu tànnoon na kii di soxna ab sa jaxate mii doomu sëriñ Ibrahima jaxate ngir nag mu seede nag ñaari diggante yooyu lool moo taxoon nag bàyyi xaalima jaxate kala fa boon soxna ab sa jaxate mii na ngir jébbal ko Mamor Anta Sali Mbàkke na ngir mu dëkkoo ko ci wàllu kër ginnaaw bu bàyyi xaalima jaxate kala nag amee boobu mébét nag ngir waxoon ko Mamor Anta Sali Mbàkke ngir mu fab soxna Absa Jaxate mi ngir mu seede seen diggante bu ëllëgee jamono jooju nag Mamor Anta Sali Mbàkke nag mi ngi ñeenti soxna nag ci biir këram te ñeenti soxna nag lislaam mayewul bépp doomu aadama nag bu tënku ci lislaam nag nga bëtt nag yooyu sart Mamor Anta Sali Mbàkke nag amoon nag jaaxle nag ci loolu xaritam boobu bëggoon di bàyyi xaalima jaxate kala ginnaaw waxtaan woowu ñu soxna Anta Njaay Mbàkke mi nekkoon waajuru maam Cheikh Anta Mbàkke booba nag jamono jooju nag mi ngi ci kër gi ci la sàkku nag ci Mamor Anta Sali Mbàkke di ko wax na sa xarit boobu kat di bàyyi xaalima jaxate kala lim bëgg nag foo jaar defal ko ko soxna ab sa jaxate mii mu la bëgg a jébbal kat foo jaar dëkkoo ko ndax soxna ab sa jaxate kat ñun ñii kat liñ sàkku ci yow ba am ko wala li ñuy sàkku ci yow ba bëgg koo am loolu rek la bàyyi xaalima jaxate kala mii xalaat ci moom ngir moom itam mu man koo am ci yow kon nag foo jaar nag dëkkoo ko Mamor Sali Mbàkke nag doon na laaj soxna Anta Njaay Mbàkke lii nag naka ci pexe soxna Anta ne man kat bokk naa ci soxna yi nga xam ne ñu ngi ci kër gi te bokk naa itam ci soxna yi nga xam ne ñoom ñoo mag itam ci kër gi kon nag maag yow nañu waxtaan nga yeeyu ma bàyyi ma nag ci biir kër gi ma nekk fi ñi nga xam ne ñi ñoom ñooy ay tuut tànk yi fi nekk nag bañ xam dara bu ko defee nag mbir mi nag yam ci suñu diggante nga fob nag soxna Absa Jaxate mii nag dëkkookoo Mamar Anta Sali Mbàkke nag fekk si woon na soxna Anta ci bëgg-bëgg boobu ngir mën a wéyal nag sàkku téefu bàyyi xaali ma jaxate kala kon ginnaaw bi nag la bàyyi soxna Anta Njaay Mbàkke mu des ci kër gi mu fob nag soxna Absa Jaxate mii nag ko kon lii moo indi soxna sa Jaxate nag ci kër Mamor Anta Sali Mbàkke ci ginnaaw bëgg-bëggu Baay Xaalima Jaxate Kala waaye nag ci taxawaayu soxna Anta Njaay Mbàkke ndax moom moo fexe ba mbir mi am soxna sa Jaxate moom bi mu fa ñëwee nag benn doom nag la am ak Mamor Anta Sali Mbàkke muy kim tudde Cheikh Sidiya Baba di Serigne Cheikh sa Mbàkke jëf jooju soxna Anta Njaay Mbàkke def nag ci soxna sa Jaxate ngir Mamor Anta Sali Mbàkke nag mën koo dëkkoo kóllëre googu nag ñaari jëmm yooyu am ji fob rakkam jii nag di sëriñ cheikh sa mbàkke tegaat ko nag ci yi soxna anta njaay mbàkke féetalekoo nag maam cheikh anta mbàkke ngir ñoom ñaar kat ñu wéyal ñaari kóllëre yooyu seen waajur yi amoon loolu nag moom moo waraloon diirub li seexul xaddim nekk ci géej gi sëriñ cheikh absa mbàkke mi ngi ci loxoy maam cheikh anta mbàkke ginnaaw bu ci géej gi itam da koo bàyyi nag ci loxoy maam cheikh anta mbàkke ndax kóllëre googee seen ñaari waajur ya amoon kat ñoom ñaar ñu man koo seede lii moo waral nag diirub li sëriñ cheikh sa mbàkke nekk nag ci kaw suufa mi ngi ci loxoy maam cheikh anta mbàkke ba tax na foo masaa gis maam cheikh anta mbàkke gis rakkam jooju nag di sëriñ cheikh absa mbàkke ba tax na sax bi mu génnee àdduna ci atum 1935 moom sëriñ cheikh absa mbàkke seen jarbaat boobu di sëriñ moodu faati Touré bu Madina Touré moo ko taxawu moo ko jullee boobu nag mi ngi fekk maam cheikh anta mbàkke nag ci dëkk boobu nag di ségu ci teg loxo nag bu ko tubaab bi teg loxo sëriñ cheikh absa mbàkke nag mu wéy nag nekk ci ginnaaw magam maam cheikh anta mbàkke ba ni sëriñ tubaa seexul xadim demee gi ba nim ñibbisee ci atum 1902 1963 nag sëriñ tubaa seexul xaddim ñëw na ci daaru salaam ci ngan gum amoon ci maam cheikh anta mbàkke ci ngan googu itim sëriñ cheikh absa mbàkke ko taxawoon magam ji la di maam cheikh anta mbàkke ngir mu ganale magam jooju nag di xaadim rasuul ba tax na bi maam cheikh anta mbàkke di ganale ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ndax su ngeen delloo ci istuwaaru nganuk daaru salaam googu di ñaar fukki fani korite ga bi xaadim rasuul ñëwee ci daaru salaam googu di gane si rakkam jooju di maam cheikh anta mbàkke boobu sëriñ cheikh absa mbàkke mi ngi ci ginnaaw magam jooju di maam cheikh anta Anta Mbàkke ginnaaw bu fa xaadim rasuul ñëwee te ngan nga yéeme woon lool xam ngeen ci istuwaaru ngan googu wax nañ ne maam Cheikh Anta Mbàkke rey na luy dox rey na luy naaw ba kero sax tëraloon na doomu aadama ngir fas yéene ko faagaagal kookee ñu bëggoon a faagaagal bisub keroog ku ñuy wax sëriñ Aas Kamara la sëriñ Aas Kamara moomu taalibépp sëriñ Cheikh Absa Mbàkke la woon sëriñ Cheikh Absa Mbàkke moo ko jébbaloon maam Cheikh Anta Mbàkke sëriñ Aas Kamara moom nag mujj gi maam Cheikh Anta Mbàkke nag jébbal na ko maam Moor Jaara magi mag mu wii nekk nag ci ginnaaw magam ginnaaw ngan gi ci dëkk boobu nag di Daaru Salaam sëriñ Tubaa Seexul Xadiim ab diir bu néew la fi def baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ci réew mi di gànnaar gànnaar googu sëriñ cheikh absa mbàkke dem na fa ànd fa ku ñuy wax sëriñ cheikh ka sëriñ cheikh ka nag doomu sëriñ sàmb tukkulóor ka la sëriñ sàmb tukkulóor ka bokk na itam ci ñi jàngal xaadim rasuul sëriñ cheikh ka moom itam ba tey mooy maamu sëriñ cheikh siidil muxtaar ka jëmm jooju nag la àndaloon gànnaar ginnaaw bu leen fa xaadim rasuul wooloo woon ndax ñoom ñaar ka sëriñ tubaa seexul xaddim daana wax ne sama ñaari cheikh yi ginnaaw bu ñu egsee gànnaar ci ndigalul ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim sëriñ tubaa seexul Seexul Xaddim waxoon na Sëriñ Cheikh sa di ko wax ne sa cër bi moo ma la jël ndax ñu ci bare bari jël si nañ seenu cër waaye sa cër bi bënn nga ni jël see ko Sëriñ Cheikh sa Mbàkke keroog mi ngi tontu ko baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim di ko laaj ba xam sañ na koo ñaan wala sañ naa sàkku ci moom dara Seexul Xaddim doon na ko wax bismillah Sëriñ Cheikh sa Mbàkke keroog mi ngi wax ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim di ko wax ne àdduna pexe xel mu rafet moo fiy jàllale doomu aadama te macha allah maa ngee ki pexe te defal nga ma itam lii di barke sama cër boobu nag dencal ma ko ëllëg yow mal xiyaam fa nga xam ne nii nag pexe jafe na fa seexul xaddim nag doon na wax nag rakkam jooju di sëriñ cheikh absa mbàkke na ko nangul nañ la ko téye na ko fa nag ab diir nag ñaanal ko mu dellusiwaat nag ci réew mi nag di sénégal seexul xaddim wéel ak nekki nag ci réew moomu di gànnaar ginnaaw gànnaar ci yéen jolof sëriñ cheikh absa itam daana fa dem nag di fekki magam jooju xaadim rasul ginnaaw ci yéen jolof njaaréem njaaréem googu itam kazaalika njaareem googu sax la ko sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim joxe ndigal ngir mu dem na gor ay dëkk féete fa ñu ràññee ci dëkk bi mu njëkk a gor di joreel ci atum 1913 laataa dëkk boobu mu njëkk a gor di joreel ci atum 1913 taxawaloon na nag lii di kër sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim boole kook soxna suñuy wax soxna Ndumbeka soxna Ndumbeka nag ci dëkk bi nag di Yaañka la dëkk wala fi la cosaanoo woon ba tax na sax am naa kii di sëriñ Cheikh sa Mbàkke ak njaboota ginnaaw dëkk boobu di joreel nekk ci département bu Bambey sanc dëkk bu tudd kër gaañi ci dëkk bii di kër gaañi sax la génnee àdduna ci atum 1935 ñetteelu dëkk bu sëriñ cheikh absa mbàkke gor mooy dëkk bu ñuy wax njétti salaw ba tey itam mi ngi département boobu di bu bàmbay sancaatoon na itam dëkk bu tudd kër cheikh ci dëkk yi nag la nekkoon di liggéey di yar di jàng ak di jàngale di dunal nag ndonal xaadim rasool dëkk bii kër cheikh nag ginnaaw bu mu ko sancee itam nekk ci département bu bàmbay dëkk bi nag dafa mujjoon gent ginnaaw nekkinam bi sëriñ moodu mustapha mbàkke falilu wuutoo cheikh Mamadul Faadal Mbàkke la sàkk woon ci sëriñ Cheikh Coro Mbàkke di ko wax ne mu dem yeesalaat dëkk boobu di kër Cheikh te féete fa mu Mamadul Moustapha Mbàkke Falilu këram mi ngi doon xamal sëriñ Cheikh Coro bu sëriñ Cheikh sa di ko wax ne lépp loo xam ne nii jóge na Ndakaaru jëm si Touba dana jaar nag ci dëkk boobu nag di kër Cheikh àddunay dox histoire di natt ba lii di autoroute ila Touba bi ci dëkk boobu nag di kër Cheikh foofu la jaar dëkk yooyu mu sancoon nekk fa nag bépp mag ko nemmeeku ndax doomu Mamor Anta Sali Mbàkke la ko amul relation la nag ak mag ñi toppoon ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim moo xam ay magam ak ay rakkam yim séqal Mamor Anta Sali Mbàkke ba tax na kii di magam Mamor Jaara Sëriñ Cheikh Absa Mbàkke tudde woon na ko doom magam Xaadim Rasuul Sëriñ Cheikh Absa Mbàkke tudde woon na ko doom ba tax na sax ki ko njëkk a wuutu Xaadim Rasuul la ko faye magam maam Cheikh Anta Mbàkke mi ko magam Xaadim Rasuul booleeloon tudde woon na ko doom ndax Sëriñ Cheikh Gaawaan mi ngi fi woon magam Sëriñ Cheikh Coro Mbàkke mi Anta Sali Mbàkke itam tudde woon na ko doom ndax sëriñ Cheikh Coro Mbàkke moom sëriñ Cheikh Absa Mbàkke mi ngi fi woon maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru sëriñ Cheikh Absa Mbàkke itam tudde woon na ko doom ndax kii toog xalifab sëriñ Cheikh Absa Mbàkke jamono jii ñuy waxeeg yéen maam Ceerno Mbàkke moom sëriñ Cheikh Absa moo ko meññi ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñun séqal nag Maam Mor Anta Sali Mbàkke moo xam góor ak jigéen rakkam sëriñ Masamba Mbàkke di caatu Maam Mor Anta Sali Mbàkke kii di sëriñ Cheikh Absa Mbàkke itam tudde woon na ko doom ba tax na itam soo demee ci njabootu sëriñ Cheikh sa Mbàkke mbàkke ñu ci bare bari te tudd ma sàmba sëriñ ma sàmba mbàkke moom sëriñ cheikh absa mbàkke lañu leen fayee mbàkke rakkam la ko faye woon yeneen mag yim bokkaloon ëttub ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim itam ñu ci bare bare itam tudde nañ ko doom wala amoon nag ñoom itam lii di ak relation ba tax na itam ak njabootam feeñ na ci ndax ñu bare bari ci njabootam gu jigéen gi jébbal na leen ñooña ndax doomam ji mu faye woon taawu mamor anta sali mbàkke di soxna faati mbàkke sëriñ cheikh awa balla mbàkke ndaamal daaru la ko jébbaloon soxna assu mbàkke doomu maam cheikh anta mbàkke bii ñuy wax sëriñ elaaji tàkko mbàkke la ko jébbaloon soxna na bu mbàkke di doomam sëriñ dëkk ñan bu kër ñang la ko jébbaloon ba tax na am naa sëriñ dëkk ñan sax ak njaboot ñu man cee ràññee sëriñ muudu ñang soxna aminta mbàkke di doomam sëriñ ibrahima dia bokkoon ci jàmbaar toppoon maam cheikh anta mbàkke itam la ko jébbaloon ba tax na moo jur sëriñ abdourahman dia moom cheikh ibrahima dia ginnaaw cheikh ibrahima dia soxna aminta mbàkke itam demoon na méewnu am fa ñuy wax sëriñ néew nu jaxate doomam ji ñu tudde soxna mbàkke moom la joxoon sëriñ daam joorloo ba tax na soo demee ci waykat yu mag yi te toppoon xaadim rasuul ku mel ne cheikh moussa ka doomam ji mu faye woon soxna maymunatu mbàkke bintu sëriñ tubaa seexul xadim sëriñ cheikh sa mbàkke la ko jébbaloon ba tax na moo meññ ñaareelu xalifa sëriñ cheikh sa mbàkke di kam faye magam ja maam cheikh anta mbàkke di sëriñ cheikh gaawaan mbàkke moo tax soo demee ci way yi ko cheikh moussa ka way ci wolofal gi mu tudde jaaraama maam jaara te du ci tudd safar fa muy tudde sëriñ cheikh absa mbàkke ma ngay wax ak tab gu sëriñ cheikh sa mbàkke amee woon ak yéene gu mu yéene woon ak nangoo liggéey gum liggéey moom rek ko xaadim rasul boobu cheikh absa mbàkke toj na àllub jooreel wam mat na ruuya lii soree naak ba ak leeram ya ak xikam waa mbàkke ku dul cheikh bamba ginnaaw cheikh moussa ka sëriñ moor kayre nekkoon itam bindkat ci ginnaaw ko baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim moom kim def na ay way ci kiir sëriñ cheikh absa mbàkke ma ngay wax itam tabuk sëriñ cheikh sa mbàkke mun mu ne sëriñ Cheikh sa Mbacke ku tabe woon la léeg-léeg daana may nit mu mën a taxawal ab bitik ñu teelu lenn ci ay way yu ko sëriñ Mor Kayre defal ci tab gu sëriñ Cheikh Absa Mbacke tabe woon tabam nga siiw na léeg-léeg mu may nit mu ber bitik sëriñ Cheikh Absa saa yu teewee ci jotaay nit ña yokk seeni mbir tab googu mu tabe woon ak nangoo joxe googu mu nangoo woon a joxe doomam mu dul Fadal Mbacke wax na njabootu sëriñ Cheikh sa Mbacke di leen xamal na seen waajur wa ëllëg yowmal xiyaam bu ñëpp toogee cirub tabe lañ koy takkal cëru tabe lañ koy jox tabe googu mu tabe woon ak nangoo joxe googu mu nangoo woon a joxe ci noonu nag la nekkoon ci dëkk yi féete woon rawatina nag ci dëkk bi mu nekkoon di jooreel sanc ko nag ci ndigalul ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim ci atum 1913 ci dëkk boobu di joreel nag la féete woon Paul Martin ci autorité coloniale yi la bokkoon bare na itam ci kilifa diine yum seeti woon di xool itim naka lañ tooge ci dëkk yooyu ñu nekk soo demee ci rapport bi mu def te nekk nag ci archive nationale bu France ma ngay wax ci rapport ba di wax na sëriñ Cheikh Absa Mbacke ki ku ko yéem la ndax kat fekk na koog lu tolloog ñetti téeméeri doomu aadama yoo xam ne ña ngi ca ginnaawam te ci biir ñetti téeméeri doomu aadama yooyu kenn du ca dugglu sa yoon nekkul kenn du ci yalwaani kenn itim du ci taxawaalu te kenn ku nekk liggéey ba nga def su noppee fañ la dël fa ngay dem toog mu ne sëriñ Cheikh Absa Mbàkke na ku ko yéem la soo demee archive nationale daa fa fekk document bi Paul Martin yónnee France ngir saytu gum doon saytu kilifa yoonu murid wi lii la seedeel sëriñ Cheikh Absa Mbàkke tabe moom tax na itam mag ñi toogoon nañu ci njaareem di seede baaxuk sëriñ cheikh sa ak tabagum tabe woon ak nangoo topp gum nangoo topp ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ginnaaw bu seexul xaddiim génnee ma ngi leen di wax ne lépp lu ngeen wax ci sëriñ cheikh absa mbàkke des na ba tey ci tabuk sëriñ cheikh absa mbàkke seet si woon na doomam cheikh mamadul faadal mbàkke cheikh mamadul faadal mbàkke joxoon ko addiya ab lal ginnaaw bu mu génnee tàggutoog cheikh mamadul faadal mbàkke cheikh mamadul faadal mbàkke itam joxaatoon na ñeneen xaalis di leen wax ne baay cheikh absa mii génnee kum dajeel dana ko jox lal bi waaye fexe leen nag ba topp ci ginnaawam heure bu joxee lal bi ngeen jëndaat lal bi te fexe nag lal bi dem këram kon tabe moom ku ko defoon la ndax dara dawu ko booleeg alalam ba tey ci tabuk sëriñ Cheikh sa Mbacke dëkk bii mu goroon sanc ko di njët calaw mi ngi ci wetu dëkk bii nag di kër gaañi ci département bu Bambey am na gennuk tabaski mu nekkoon imaamu dëkk ba biñ demee bay waaju julli ji nag la benn waay ñëw di wax sëriñ Cheikh Absa di ko wax ne liggéey sëriñ cheikh absa mbàkke nag faboon na xaram moom nag jébbal ko waa jooja te moom nag moo fas yéene nekk nag imaamu dëkk ba te balaa kenn rey sam xar imaam daa rey ba noppi ginnaaw bu ñu jullee tabaski ba noppi nag di xaar imaam rey am xaram biñ ñëwee kër sëriñ sa absa ñu fi nag imaam war a reyum xaram askan wi nag jaaxle lool nag di dëkk boobu nag di njët calaw nes tuut nag lañ seen benn waay muy ñëw yor ay xar ginnaaw bu mu egsee nag la ko jébbal sëriñ cheikh absa mbàkke waaye sëriñ cheikh absa mbàkke waxul deful dara daa dëppaat delluwaat soo demaatee ci téere bii seex musaa ka bind tudd ko mat la bul xaajaati ma ngi fay tuddaat bu baax a baax na ki di sëriñ cheikh sa mbàkke di ñaan ci darajey sëriñ cheikh absa mbàkke tab googe sëriñ cheikh absa mbàkke tabe woon suñu boroom dafal ko tab gu toll noonu ci darajey waajuru sëriñ cheikh absa mbàkke ñu teewlu ko ci darajey waajur naan cheikh sa nang ma yërëm maag sama ndey ja absa te dafal ma tab gudub jeex ak doole ma doole jërëjëf jërëjëf sëriñ Mor Kayre yéen ñi ñu dëggalal tabuk sëriñ Cheikh Absa Mbàkke sëriñ Cheikh Absa Mbàkke nag ci loolu la sax ba ni mu génnee àdduna ci atum 1935 sëriñ Cheikh sa Mbàkke mi ngi génn àdduna ci feebar bu ko tëral ci atum 1935 ci dëkk boobu mu goroon féete woon fa di kër gaañi mi ngi génn àdduna bisub talaata ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor ci atum 1354 ci gàddaay gi talaata ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor ci atum 1354 ci gàddaay gi dëppoo muy mardi 24 décembre 1935 mardi 24 décembre 1935 ci xilaafa ki fi nekkaloon xaadimu rasul di cheikh mamadul moustapha mbake ñu jëlee ko ci dëkk boobu mu génnee àdduna di kër gaañi kër gaañi nag mi ngi ci département bu Bambey ci région bii nag di bu Diourbel ci dëkk boobu nag lañ ko jëlee indi ko ci dëkk bu sell bii di Touba Serigne Mor Fati Touré nekkoon seen jarbaat moo ko taxawu moo ko jullee ñu jébbal ko boromam ci wetu Serigne Ahmadou Ndumbe mbakke borom xabaan ci armeer yu mag y mbooleem axlu murit gi moom sëriñ cheikh sa mbàkke nag ay xalifaam nii la tëddee ci atum 1935 ba atum 1985 ki ko njëkk a wuutu mooy kam faye xaadim rasuul di ku ñuy wax baay sëriñ mbàkke ibnu sëriñ cheikh sa mbàkke ñaareelu xalifa sëriñ cheikh sa mbàkke mooy kam faye maam cheikh anta mbàkke borom dërëm ak ngërëm di sëriñ cheikh gaawaat mbàkke moo ko wuutu ci atum 1985 ba atum 1995 ñetteelu xalifa sëriñ cheikh sa mbàkke mooy ku ñuy wax sëriñ du mbàkke moo ko wuutu ci atum 1995 ba atum 1996 ñeenteelu xalifa sëriñ cheikh absa mbàkke mooy kam faye magam ja sëriñ cheikh coro mbàkke moo ko wuutu ci atum 1996 ba 2001 juróomeelu xalifa sëriñ cheikh sa mbàkke mooy ku ñuy wax moo du mbàkke moo ko wuutu ci 2001 ba 2005 liñ tudde nag doomu sëriñ cheikh sa mbàkke yu góor yi jeex tàkk nag ci kaw suufa sët tàmbalee wuutu seen maam ji sët bi njëkk a wuutu maamam di sëriñ cheikh absa mbàkke mooy ku ñuy wax sëriñ cheikh mbàkke xom xombal doomu maam Thierno Ibrahima Mbacke xombal la maam Thierno Ibrahima Mbacke xombal mii nag moom la Serigne Cheikh Absa Mbacke faye woon magam ja maam Thierno Ibrahima Faati Mbacke ndaamal xombal a wuutu maamam ci atum ba nëgëni ñu koy ñaanal moom Serigne Cheikh Mbacke xombal mii suñ borom yàggal ko ci toogaayu Serigne Cheikh Absa Mbacke ak mbooleem nag ñum séqal Serigne Cheikh Absa Mbacke moo xam góor ak jigéen Serigne Cheikh Absa Mbacke nag am na bis buñ koy fàttaliku wala am na bis buñ ko daa fàttaliku muy ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor gii di bis bi mu génnoon àdduna daanañ ko ci fàttaliku waaye ginnaaw bu cheikh mamadul faadal mbàkke toogee xalifa général des mourides sàkk woon na nag ci mag ñu baree baree bari ci bis yooyu ñuy taxawu seen waajur yi ñu bàyyi ko ndax bis yooyu kat moom bokkul ci bis yi ko gënal noonee mu ko sàkkoo woon ci mag ñu baree bari itam ni la ko sàkkoo woon ci njabootuk sëriñ cheikh absa mbàkke mii njaboot gi itam wax jooju cheikh mamadul faadal mbàkke waxoon ci ñoom dégge ko woon ak nopp yu tëx bàyyi woon nañ sax lépp luy màggaluk sëriñ cheikh absa mbàkke biñ di atum l'an 2000 tombeeg sëriñ cheikh coro mbàkke mi nekk ñeenteelu xalifa sëriñ cheikh sa mbàkke moo dajale dajalewaat njaboot gi nag ngir ñuy fàttalikuwaat seen waajur woowu mu wéyal nag ndigal li fi mu dul faadal mbàkke bàyyi woon ngir bëccëgu ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor googu daal bu soñoon duñ ko màggal sëriñ cheikh absa mbàkke loolu itam moom moo taxoon sëriñ cheikh coro mbàkke ibnu sëriñ cheikh absa mbàkke ginnaaw bu mu taxawalaatee nag lii di màggal gi mu jàpp ko ci bis boo xam ne nii njaboot toog sëriñ cheikh absa mbàkke gépp juboo nañ ci ci bis juboo nag ci bis boobu nag nag la ñuy fàttaliku kii di sëriñ cheikh absa mbàkke ibnu mamor anta sali mbàkke bés bi itam bu nañ ko màggale nag ci dëkk bu sell bii nag di tuubaa bi nag di tayba muttu fa ginnaaw xilaaf ak sëriñ muudu mbàkke nag ci xilaaf ak sëriñ cheikh xombal ñi ngi koy màggale nag ci dëkk bii nag di xombal kon lii mooy màggaluk sëriñ cheikh absa mbàkke ibnu mamor anta sali mbàkke ba tey itam njabootuk sëriñ cheikh absa mbàkke bis bi sëriñ tuubaa seexul xaddim bàyyi ko woon mbàkke baari jolof de fukki fan ci weeru ut ci atum 1895 dëppoo woon ak fukki fan ak juróom ñett ci weeru safar bisu tubaab boobu di fukki fan ci weeru ut ba nëga ni itim njabootuk sëriñ cheikh absa mbàkke ñoo koy màggal ci dëkk boobu nag di mbàkke baari jolof di dëkk bi xaadim rasuul bàyyi ko woon dem ndar géej ñuy ñaan ci rakk ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim di sëriñ cheikh sa mbàkke ka waajuróom faye woon seex siidiya baaba bu gànnaar yàlla nañu ko suñ boroom fayal te yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem te guddal fanu njabootam gi mu fi bàyyi lii di Cheikh Sidiya Baba Amin Sidiya Baba Amin